nee naa diggante Bib Diop ak doomu Loro combat bi ci dëkk ba lañ ko doon dox waaw gisoon Baba Jaxale ngi noonu le grand champion Baba ngi noonu waaw kii kan loola neex bi ngi noonu gis na fi Dof Jazz gis Baab Jaxal Boy

gaa yi ci kawam waaw ndeysaan li wa neex a sama xarit sama doom yaay beem Karbala maa ngi koy waaw waaw waaw waaw ndeysaan Bib Diop ba Bib Diop am na lu mu naan ci jox ko guddi gi mu naan gaa ngi réclamer li nga xamante ne mooy waaw ngi ñëw Big Jow moo ngi ñëw Big Jow moo ngi ñëw Big Jow moo ngi ñëw Big Jow moo ngi ñëw Big a a ngi ñëw loolu la mooy ñi nga xamante ne ñooy supporters yi mu nga yëkkati ñaari omi ñoo gis booy wàllu si ginnaaw waaw Bib Diop waay ndeysaan moo ngi fëgg dënd bi Matar noonu soldaaru ba soldaaru Yeumbeul moo ngi door ci loxo ba naan Bib Diop moo ndeysaan ay waay waa bib jo waa ni naa ni moo ngay jaayu di yëngal ci ay magam waaw ndeysaan waaw Bib Diop waay ali lala ndeysaan doomu yëmbal bi la mbapeta la ren la solopar loolu yëpp moo koy wuyoo waaw sama xel dem na ci Gris Bordeaux le troisième Tigre de Fass deux gaa ngi noonu ci ginnaawam a ah, di leen fàttali Bib Diop moo ci écrit bii di Bosco Sow ah, di fa def ay preuve am quatre combats quatre victoire moo koy arrêté doomu looro la wala loolu leer la 30 incha allah Bib Diop waay waaw. waaw waaw waaw ay waay Matar a ngi noonu soldaar yëmbal mooy baaxu noonu waaw waaw Matar waay

xale yaa ngi noonu ndeysaan Deux moo ngay waajal nee naa leen mu neex bu feccee mu neex le grand champion Bib Diop Boy Waalo Boy Walo ngi noonu deux ngi noonu deux Ziga doomu ndey un Ziga noonu ndeysaan mbër total ndeysaan ndeysaan Bib Diop ba tey bàyyiwul moo ngay yëngatu matu demal ayca salaamaaleykum mbokk yëmbal salaamaaleykum mooti ndaataande nuyu nañ leen siyaar leen bu baax a baax ñu ngi jëm nag ci bis bu rëy muy le 30 bisu Ibra Diouf borom mbeewaan production mu tëgg ci nag bis bu rëy ndax dafa tëgg grand combat bi mu war a dox ci diggante Caatu Waalo ak Kalmandour waaye nag nee la combat amateur yi mooy combat bi nga xamante ne mooy diggante Bib Diop ak doomu Loro lu ne waxante nañ ko nag waaye nee naa la des na li des bareetul dimanche la ñuy sëgg fa li nga xamante ne mooy arène nationale dañ koy jox mu nuyoo su nuyoo pare ñu tàmbali li nga xamante ne mooy waxtaan bi bi Diop nuyu naa la. Matu nuyu naa la bu baax du nuyu presse bi yëpp di leen nuyu ñoom Seydina gars yi fi teew yëpp presse bi maa ngi leen di nuyu di leen nuyu yow tamit sama jigéen du nuyu waa Yëmbal du nuyu sama papa bu baax di ko sant di ko gërëm du nuyu sama yaay di ko wax sonn na si man. du nuyu waa yëmbal yëpp bàyyiwuma kenn surtout fii ma nekk terrain bi ma nekk mi terrain naataange di nuyu waa naataange yëpp ak ay see yu ñu wër yëpp farba cosaan déggoo xandaalu Africa tout sam-sam di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn waaw. Bib Diop balaa may ñëw ci question yi damay ñëw ci nga xamante ne mooy doomi Loro ndax Bib Diop utal nañ la sept adversaire hmm. ñu bañ Bib euh, doomu Loro nangoo jël sa avance lan nga koy wax ba pare. waaw loolu keroog waxoon naa ko signature ba dama koy sant rek di ko gërëm ci loolu mu def ndax yaakaar naa sama avance mi ngi doon taxawaalu biir CNG mënu ma woon am ku ko jël moom mu jël décision pour jël avance bi Bib dama koy nuyu baax di ko ñaanal jàmm di ko wax mu préparé mook ay mbokkam ak lu mënti xew moom mooy day ñëw daanoo waa loolu laa sekk moom. mais ñu gis keroog xombal. seen premier face to face nit ñi sax yaakaaroon nañu Bib Diop du ñëw. nga jékki-jékki daal di jox ci biir nit ñi. lan la woon da doon laqatu wala. waaw boobu ñëw naa xombal bu yàgg damaa jaar sama benn kër maire boo xamante ni dafa baax si man waaw maire boobu noonu daf ñuy defal ay taranga seetiwaale sama kilifa sëñ Matar loolu la woon ma jaar fa dallu añ ba suur maak samay mbokk après doo a ñëw signature ba. kon Bib Diop yow keroog xombal nga yenn ñemel nga nag nga xamante ne mooy doomu la. waaw jiitu naa xombal mu fekk ma fa mu ñibbi bàyyi ma fa ma doog a ñibbi waaw. mais dayoo combat bi tey ji Bib Diop nga génn waa naataa nga génn waa yëmbal génn tey open prise bi lan moo tax teeloo génn lépp ci ay mystique la wala. noo dañuy pare ñun ak suñuy mbokk. te Bib Diop dafa nekk koo xamante ni dafa nekk xale mais dafa jiital ay magam si ay seen i ndigal lay dox seen waaw lay dox seen i lay dox doxul si lu dul ndigalu grand freeram am looloo waraloon ñu toog si biir di leen téglu ñun ñu génn leen ñu génn mais daanañ gën a teel a génn mais lépp ay ndigal la te du ma teggi seen ndigal loolu rek a waral guddee bi di si jéggalu ñëpp nag waaw ak sama mbokku mbëri fi teew yëpp di si jéggalu combat bi nekk diggante njool ak ndaama ndax dugg ci say yel waaw matu yaakaar naa ñi ma bëral ñëpp man maa leen sut te yaakaar naa bi ma leen jàppee làmb ji dafa jeex sama combat yëpp woo calculé 4 combat la yëpp 4 minutes la woo calculé combat bi si nekk si 30 secondes la wala une minute si 4 minutes laa bëre sama combat yëpp ndaama jaaxaluma. kon ngeen war a bëre kii ñaanuma yàlla yegg ak moom 30 secondes yaakaar naa ne benn jooy laa koy jooy mu jeex incha allah. mais di xeex. dina xeex moom sama loxo yi dama xaan naa mu wóolu ko faaw muy xeex moom. waaw moom ay mbokkam sa xam nañ ne bib day xeex. non bib ñeme xeex ak damay xeex ak moom. nee na mosoo lan mooy defet. non non man sama defet ñëwagul man matu yàlla baax na mais matu man roi des arènes laa teg sa mbën mais pas booy coxo coxo yi nii. Ah. non non. lan moo tax nga la. dama wax rek dafa am fu ma teg sama bët yëmbal yónni ma yàqamti ma ak gox bii ma dëkk. sama nit di sonn si man ñu ngi nii si ginnaaw ñoom doga faali ñoom ñëpp. non. parce que bu ragaloon du loolu mooy risque nag jël koo xamul ba si biir nga bëgg a delloo avance bi loolu mën na nekk mais jël koo xamul ba si biir nga xam ma xamoon du ma ko jël eh, moom xam naa ne suma xamoon la toll moo ko ay mbokkam de non wóor na ma non fu mu dëkk maa nga fa gën a dëkk ñun ñoo xàll jox leen ñu dëkk suñuy taalibe lañ moom xam na li ma koy wax bu baax seen gàmmo gi dem naa te gisuma maa la wax lii maa ngi ñëwoon naa si jàng yi te gisuma na yaru ñëw na ci jàng yi hmm. moo ko ay mbokkam moog ay magam ñoom xaari ak ñëpp hmm. waaw. ayca Seydina ku am question. Mhm. Hmm. sama gars yi ziar ziaraat ah, mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo Euh, di leen wax ne ah tey le jeudi 27 octobre 2022 sama gars yi ñoo ngi open press Bib Diop 95 mi ngi war a bëree le dimanche 30 octobre 2022 war a jàkkaarloo ak kan doomu Loro pensionnaire de l'écurie xam sa cosaan sama gars yi Bib Diop 95 c'est 5 combats. cinq combats quatre combats ou cinq. quatre quatre combats quatre victoires bii mooy cinquième combat mi ngi war a bëre le dimanche Mbéwane production moo fa jaar ah. grand euh, grand Mbagnick Kalmundoor face à Thiatou Walo mais tey ki ñu fi tax a teew mooy Bib Diop 95 war a sikk ak moom question réponse rakk ji. Mhm. Bib Diop 95. wax naa ko gars yi ah nee naa leen Bib Diop dafa jàpp ne ku taxaw ci kanamam dalay faxas jàll lool nga wane depuis le début ah loolu la ah loolu la waaye yàggatul ndànk rek dimanche soreetul sama gars yi dimanche soreetul da nga tàmmal say supporter ah da nga tàmmal say supporter bëre ci fraction de seconde bëre jàpp daan loolu nga tàmmal say supporter say combat des fois des fois quelques fractions de seconde ci ngay plier sa won ko ginnaaw bii nag danga jël booy boo xam ne yaakaar la écurie xam sa cosaan c'est un espoir mais aussi dañ ne doomu looro yaa ngi may dégg maanaam dëkkam tamit dafa di koo xam ne ñoom moom la ñuy yaakaar biib je vais dire boo jàppee ni combat bi nga jëm dana yomb comme sa combat yi passé yaa ngi nax sa bopp parce que booy bi dafa mën a bëri. naa maa ngi lay nuyu bu baax di la wax doomu loolu lu mu bëre rek samay mag jàngal nañ ma ko ba toog te da ngay dégg yenn saa yi bi naan jàngal naa ndongo li ba mu raw ma sama wasila wax na ko Cheikh Amadou Diop nee na jàngal na sëñ Basir Diop sama wasila ba mu raw ko kon te jii loolu laa nekk samay mag ñoom mataar Camara ñoom Ngal Koki ñoom ñëpp jàngal nañ ma ba ma raw leen te ñoom xam nañ ne jàngal nañ ma tarbiyu naa si ñoom doomu loolu mënu indi lu ma jaaxal mënul andi lu la jaaxal déedéet loolu nga yaakaar déedéet loolu nga foog du ma jaaxal je vais dire une chose def na li mu doon def ci làmb Matar ba muy toj fii mbapat ma fekkee naa Papisco ba muy toj mbapat fekkee naa ngal kokki et tout et tout et tout ci géew gi jour si dañuy ñëw jox la ay conseil taxawee ne yaay dugg ci biir géew jàkkaarloog doomu looro bàyyi xel ci loolu Seydina doomu looro tawul ñu ma daan ñi ma daan doomu looro tëwu leen te yaakaar na moo war a yomb ñu may daan te incha allahu rabbi dinaa ko daan. parce que dafa am foo tegoon say bët ah, dafa am ñoo xam ne ñooñu nga bëggoon a du lu wax dafa am ñoo xam ne ñooñ nga bëggoon a bëreel. xam nga gars yi nangu wu ñu jël sa avance. nga obligé jël doomu looro da nga jàpp ne doomu looro da nga ko yokku ci sa palmarès loolu nga jàpp. bi ma daanee Thialé damaa taxaw si micro bi. ni ku ma jëlul léegi di nga bëgg a jël déwén mu tëla maa fekkee yaa fekkee te foofu nekk ñoom ñooy ñëwaat bi bëgg bëreeg Bib mais Bib du leen tal Bib Diop 95 sa premier combat dans l'arène nga bëreeg kan Bécaye 2 nga jàpp ko daan waaw deuxième bi nga bëreeg kan ma doy Thialé nga jàpp ko daan oui troisième bi nga am kan Tafa Leer nga jàpp ko daan quatrième bi nga bëreeg ma bëreeg Boy Joola nga jàpp ko daan waaw bi nga war a bëri le dimanche 30 octobre 2020 déggu ma ma dóor ko mu daanu kan ngay dóor kan ngay mu daanu. sama cinquième combat door mu daanu la. dama ne arbitre bu sifflé disons arbitre bu sifflé doomu loora ne la ñu xeex lan ngay def. sama cinquième combat dóor mu daanu la. door mu daanu. dóor mu daanu loolu nga yóbbaale. moom ay mboqam xam nañ bu arbitre sifflé mu ne la ka ñu bëree lan ngay def. du ma bëree ak moom jàpp ko kor door mu daanu. ah loolu nga yóbbaale. jeex na da nga jàpp ne kon doomu loora dugg na sa palmarès. yàgg na. yàgg na. bu yàgg xooluma ko sax. est-ce que préparation combat bi jaar na yoon est-ce que ni nga préparé combat bi jaar na yoon. Seydina simbu gi démb la tas. gone yaa ngi nii. waaw barki sëñ Bamba. dañuy sonn si man. waaw Issa Ba i Fall Maajoor Dogo Faali. waaw waaw xam nga waa génération Lour tout. waa gox bi fan si club Big Diop bi. mi ngi nii. kiriku kiriku sama taalibe bi moom mooy bi moom. waaw. kiriku moom mooy phénomène bi. waaw noonu la demee. waaw bi. jaar na yoon Seydina Esat dafa am luñ ma wax muy ñu ni ma caat bu waalo moo fay ëpp mbooloo waaw man damaa pare pour ëppale mbooloo caat bu waalo te dinaa ko ëppale mbooloo barki Mouhamed man maanaam di nga déplacé lu bëri dinaa déplacé lu bëree bëree bëri caat bu waalo laa teg sam bët essant yi nii du ëpp mbooloo si estade bi école de lutte yi euh, école de lutte Bosco Sow ñoom nga àndal coach ngi taxaw gis naa fi coach Paté mm-hmm. gis naa fi Boy Silla gis naa fi euh, Boy Waalo gis naa fi mais dama gis waa école de Bosco Sow ñoom Biram Farouz ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, kii nu mu tuddati ñoom Grofil mais waa Bosco Sow dañu teew ma gis aussi waa Jali Brahma Thior parce que gis naa fi Cheikh Mbaari Mbaari 2 mhm. gis naa fi baaba Jaxal mhm. gis naa fi waa équipe yëmbal mbooloo Xaadim euh, boo yëmbal yaa may dégg booy Joob numéro 2 yëmbal marin ñëpp ñëw nañu loolu tamit qu'est-ce que ça veut dire maanaam bib bib lan ngay dund ak mbëri ay ñoom dofu jaas lu war a mën a tax boo xew xewlee gars yi jóge fu ne ñëw teewala lan ngay dund ak mbëri yaakaar naa laaj nga ma ko open press bi passé laajaan nga ma ko tey kon kon sa xel mu gàtt rek sa njort war nga xamante ni boobu léegi mi ngi rafet ndax ñi nga gisoon bi passé rek nga gisaat mhm. aw ma ak ñoom xaar ma yàlla luñ ma wax suba ba ngoon loolu laay def dañ may gis sax sama sama signature bi dafa jàll ñoom ñëpp ku nekk di ma woo naa ma gis nañ ni nga signature macha allah jaar na yoon gëmal tey jii ba wax leen open press bi te da nga bokk ci yaakaar yëmbal. dama gëm ne damaa war a indi roi des arènes yëmbal. la couronne couronne roi des arènes ay yëmbal. loolu laa bëgg andi ko teew ba naataange. loolu laa bëgg. loolu nga bëgg loolu ngay wëri. loolooy mission bi. loolu laa bëgg. ok ñaata séance nga entraîné ci combat bi ñaata séance nga entraîné. combat bi entraîné naa quatre séances. ba mu gënee jege ma entraîné trois séances. nii nii maa ngi woon ci deux. nii maa ngi woon ci deux. yaa ngi woon ci deux. waaw mais chaque wàññi naa ba combat bi desee une semaine. Hmm. Hmm. Ah, waaw noonu la fa demee sama gars yi kan moo am question Omar Saliou. nee na question bi mooy est-ce que autorité yëmbali ñu ngi jàpp ci combat bi loolooy question bi. waaw di ko nuyu moom tamit sama grand mama. Hmm. sama grand mama ancien photographe la. waaw kon xam nga ko. di ko nuyu bu baax a baax di nga ñaanal jàmm. waaw di wax tamit autorité yi. autorités yi nekk yëmbal ñoom ñëpp ku nekk dem nañ ci yow wax nañ la suñu yóbbante ku ci mel ni Baara Gaye gis nañ ko man sama papa ñoo fa ànd gis nañ ku mel ni Laay Sagna woo nañ ko téléphone waxtaan ak moom pour Baara jàpp ci mais gisaguñ leen woo nañ ñiñ war a woo yëpp ku ci mel ni tamit Moussa Guissé moom jàpp na si tamit bu baax monsieur ministre Amadou Amadou Hott monsieur monsieur ministre Amadou Hott yow dem nañ ci ay ndawam mais ay ndawam dig nañ ñu te ñu ngi leen di xaar mhm. waaw mais daal lamb ji mën nañ ni ñu sama waa koñ ak ñuy sonn ci man ñi may nekkal chaque jour ñoom ñooy yëkkati seen dërëm di ci def sama grand modier nag may na ma kaar maa ngay sant bu baax di ko gërëm Babacar Sall di ko nuyu baax sama raq sama xarit. jour ji yaag doomu Loro. ku dàq bëre. ma ni doomu Loro maa ko dàq bëre Seydina amul ku dàq bëre. yaag moom kan moo ëpp doole. maa ëpp doole maa dàq bëre maa dàq xeex. ah yaa Seydina déggoo li ma la wax maa dàq bëre ma ëpp doole ma dàq xeex ku amaat question yaa gën a nekk xale maa gën nekk xale ku amaat question xaar ma ñëw xaar ma suñu rakk la moom gëm-gëmu làmb la am yaa ngi dégg gëmu làmb yaa ngi dégg moom gëmu lu dul bëre yàlla mi may nag yàlla na ko may ndam saa su nekk barkeb Seydina Muhammad rakk góorgóorlu ku amaat question ku amaat question ku am question sama dafa am question may leen ñu tuuti may leen ñu tuuti une question waaw une question Bib Diop wuyul waaw est li nga waxoon yaa ngi ci danga nga ne woon doomu Loro da ngay xeex moom et aussi ban stratégie nga fas yéene teg jouru combat bi pour génn ci amul teg stratégie dañ ne làmb bëre xeex ñaar yooyu lañ wax làmb bëre xeex damay xeex ak moom te li ma gëm mooy dama koy dóor mu daanu. dama xaar liggéey. noonu la fa waaw. na ñemee rek taxaw. teel ko ni teel ko ni bu baax téléphone bu baax. Eh. yóbbante na ma ci yow. Ah. nee foo toll ci mobilisation bi ak lan nga koy wax. moom li ma wax dafa leer. man li ma bëgg mooy uh-huh. caat bu wax la ma ëpp mbooloo si stade bi te du gën a neex lu may fecc du ma gën a neex lu may bëre duma gën a rafet jël xaw ma nag làmbam fu muy mujjee mais man incha allahu rabi làmb ji maa fay ëpp mbooloo incha allah. yaa wax man maa wax li te mobilisation gone yi dañoo pare. matu gone yi xoolal wuñ amul kaar sax dañuy dox. billaay nii nii nii nii nii nii wax de. gone dañoo def ay t yoo xam ne man dama see ruus bu fekkee gis nga sama esat ay t-shirtu 15000 loolu nit ñuy sonn si yow ñoo koy def nit ñu la yéene nit ñu la bëgg booy tirise wuñ ci dara yëkkati seen xaalis bëri defar ay t-shirt barki Seydina Mohamed ngir man mu xeebadu mii man mii kon man aw ma seen fay kon lu ma leen fay mooy indi mbooloo bëre daan jeex na waa jéel bi waa suñu waa groupe di leen wax le 12 novembre tamit ñu pare su ma daanee la 30 fête bi le 12 novembre la wax naa la 4-4 bi la war a yóbbu maa koy indi. waaw waaw la demee waaw di tàggatoo tamit di nuyu waa yëmbal yëpp di nuyu ñu fi taxaw ñëpp ñi ma war ñëpp ndax ñii dañuy sonn si man dañoo baax di nuyu Dogo Faali tamit wax dëgg fa yàlla combat ba mu taxawee ba léegi mu ngi ciy sonn di yëkkati alalam di si def tey motoom la jox sama gars yi ñu génn barki mu xam ne moto bi paan si àll bi billaay wallaay taalaay te meru si defu si dara billahi du nuyu gaa yëpp Ifal Maguette Diagne baaba Jolof Pape Valdo Oussou Bébé xam nga Zil Zil Kapo maa ngi koy nuyu baax sonn si loolu Cheikh Ndiaye sam booy daal waa booy yi ma kenn képp kuy bëggee bip maa ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm di nuyu sama mag Fallou day sonn si man bàyyi lu bëri ndax man di yëkkati àllam di def du ma yëg bas maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm bas maa ngi lay sant yaag sa rakk Abdou Makhari di leen nuyu baax du nuyu nag Thiam Thiam waa jàppal ma jàpp am luñ ma dikk te am naa gëm-gëm am yaqin ni dina ñëw maa ngi leen di nuyu baax di leen déglu di leen xaar du nuyu ñëpp di wax mouvement bi na si ñëpp jàpp yëmbal moo ko ñor yee di nuyu waa yëmbal nag Baara Gaye maa ngi lay woo waaw maa ngi lay woo Amru Ot maa ngi lay woo Balla Ot maa ngi lay woo di woo képp ku dëkk yëmbal ku yeewoo naataange maa ngi lay woo di rendre hommage tamit kii sama yaay ji yaa fantooy dimanche bii passé ni dimanche bii paase bii nii ñu génn bu ko jiitu la demoon xew ba muy ñëw yàlla def soog ci yoon bi si law ñàkk ba xenam muy sama yaay ju baax sama combat yëpp da daan togg si añ yi bëgg sama yaay lool sama gaama pap bi chaque année moo daan togg añ yi nekk si base ba fajar du ka nga jaale Issa Mbaye ak ay doomam ñoom ami kumba bàyyi ma kenn safiyata du jaale waa koñ bi yëpp sama yaay ji sama yaay ju baaxoon ci man waaw du nuyu tamit sama grand maar mbay maar mbay maar mbay maa ngi lay nuyu baax di la sant di la gërëm gis naa taxawaay bi rafet na trop maa ngi lay nuyu baax du nuyu waa 100 pour cent yëmbal bi gis naa taxawaay bi 100 saa cent caaray sam-sam président naataange yëpp ma kenn waaw du nuyu tamit waa yee naataange askan wi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax al alsaan maa ngi lay nuyu baax a baax a baax lu nuyu sama mag tamit Séema Diop ba mu taxawee ba léegi chaque jour mu def si xaalisam. maa maanaam bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñëpp Modou Dieye gis naa taxawaay bi maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm di nuyu waa yëmbal yëpp bàyyiwuma kenn ku lim juum Seydou Diallo di leen nuyu yéen waa presse bi tamit lii yombul tey man mu ndaw mi maa leen déplacé te am na yéen open presse wala ngeen kale seeni i journée ndax man ma déplacé leen kon maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm di nuyu Omar Saliou sama grand mama Seydina xam nga gars yëpp bàyyiwuma kenn xam nga waa G5 TV di leen bëggee bu baax aw ma seen fay maa leen nuyu yéen ñëpp di leen sant leen gërëm monat bi nag bi Diop Diop. Diop monat bi nag. ay affaire ay science ay science. ay science la. monat bi nag gisoo ay science la. ay effet la rek.